actuellement naa ñu nii clavicule bu damm te ñoom ñoo ko def. ah ni ko defee. xeex ak man ni ma tere nañ la ko sonn nit ñi sonn ñu ñuy jël nga dugg seen biir. na nga leen bàyyi. ma ni ko man lu ma xas ba song ba pare du ma ko ba barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi jeexee walaay barke si ndaw la. nu la ko waxee diggante la wala dafa ñëw di wax ak yow. daf bu mujj bi daf ma yee carrément ma jóg. xam nga lu ma dolli may chance. Ah. buul bi mu ma sànni. dama tiit ni allahu akbar ci saqandeer bi ma ko séenee ah ma moytu mu dal sama clavier mu ni sil tam sama service may ñëw mun ma waxoon naa la ko avertissement bu njëkk baa nga noonu ma ne ko dootul ñaar te li may faj du ma ko bàyyi hmm. bërki démb hmm. sama rakku jabar jooye seen lekk ñëw ñu ni ma rawale nañ ko fu nekk def nañu lu nekk te mënuñu ko faj léegi nag ñu rawale ko indi ko ci yow hmm. nee naa la na ko bàyyi ma ne ko du ko bàyyi tey du ma ko bàyyi ëllëg nga bu benn couche la ma booleel may xeex ak moom di xeex ak moom ba mu génn dem ci tëli bi sama doom ci boppam am ku jóge woon itali ñëw bëgg ko takk mu dugg ci diggante bi dindi ko ni nga kooku maa ko dàq man nga day kooku sax mënu woon séy ak moom man sawaruma ci woon mu xeex confirmation bu leer la parce que man ñi sama wax ah mhm. man presque damay faj yooyu te mhm. man ci gént la ma feeñee nii booba maa ngi en france en 75 di def stage mhm. nga sacré cœur un waaw maa fi jëkkoon am kër benn femme lañ joxoon trois pièces mu ni bugg ko mu gedd ko bàyyi rab moomu ko jëlee trois cent quarante deux sab karat huit ans et demi rab soxal na ma ko ba sama ñaari jabar yëpp ñu siir ku nekk dem sa yoon da nga wax la wa ay confirmation firnde yu leer pour wax ko ni góor gi li mu wax lépp lu am la gis nga am na ci benn femme maa moom dañuy correspondre en France jusqu'à présent neuf ans la def opération bu mu deful amul ñu boole ko ak man mu ñëw fekk ma fii d'ailleurs mi ngi dëkk ak 1 yàlla dimbale ma ci trois mois laa ko traité mu jël bron ba xale baa nga ne la di dox keneen aussi noonu keneen noonu actuellement nii am na ko nga xam ne sax mi ma promettre pour ma ñëw fekk ci ko ba martinique mais damay hésiter ndax naa dem wala déet parce que dañ lay xeex façon xeex bu nga xam ne maar day taali mais c' est que man yàllaa ma ciy dimbale quoi yàllaa ma ciy dimbale vraiment te man boo gisee yenn yu bare ma koy éviter dama yore njaboot bu saw j'ai peur de ça waaw moo taxoon ma ni même man yow man su ma xamoon sa adresse du ñàkk man danaa la seet waaw pour même dimbal pour man particulièrement sama bopp parce que man di waaj su émission bi jeex dina joxe adresse bi inshallah rabbi merci ay 49 12 45 su la amé loon laaj mara ngeen woko ñu ngi tok ci studio bi donc soxna soña lim wax vraiment lu deug la uh-huh. d'ailleurs même problème kër yoy rek bu yagul rek amna sama ben xarit dafa euh, doon uh-huh. ko nga bima tudde am nañ ma won ci gënt mané ko nga dem ba mu ñëwee si laa am lu ma ko jox comme saafara bi mu demee suy ko fa guddi gi nag rab yi fan anee xeex ak moom ni ko lu tax nga génne ñu sama kër. Ah. ma ne bu mu ñëwaatee daw wax ma ko ma ne ko balaa loolu laa gisoon moo tax ma ne la woon nga jaar parce que bu ñu leen génnewuloon bala ngay dugalee boo duggee da nga am jafe-jafe. donc ni mu wax dama koy confirmer que ne rek vraiment dëgg la te jinne moom xam naa ne luñ si waxit am luñ bàyyi. Euh, te buñ del see si wàllu nga doon wax léegi. waaw euh, muy ayatul kursi yooyu gis nga ayatul kursi yooyu soxna Sonia. moom rek doy nag gaa waaw kooku daal booy faral di ko jàng saa yooyu jullee lu mu néew neew nga jàng ko benn yoon booy tëdd nga jàng ko juróom ñaari yoon mën dimbali wala boo koy jàngit boo ñëwee ba si suufuma bi nga baam baamtu ko juróom ñaari yoon tëddaale ko yàlla mën tey tëddaale njàpp aussi nit ki na yor njàpp fu mu toll daal loolu moom te aussi li ñu digle woon si commencement bi rek muy di muur say cër yooyu nit ki daf ko am na ko def téléphone bi allo Sadam. damaa génn si. sama Wow, wow, wow, wow. mu mu Wow. a ah di wax. waaw waaw la ñu déglu rek. d' bi soxna lu baax la bu nga parce que waxoon naa sànq ni rab li muy agiré euh, boo nekkee si jëkkër pour tere laa am doom mooy da boo sëyee ba day ñëw sëyaat ak yow donc li ngay mën a def pour saafara te yomb na rek mm-hmm. même bu ñu lay jox ñaanit loolu il faut nga def ko mm-hmm. pour xeex moom parce que da ngay def saa yoo sëyeeg sa jëkkër ba pare immédiatement bu ngeen pare da changer position mm-hmm. maanaam moom bu fekkee dafa féete woon penk bu ngi sëyeeg yow euh, nga féete penk bu ngeen pare uh-huh. da ngay maanaam saw moom mu féete penk naka ñu dellu si am na kuy woote allo. allo waaw. yaa ngi sant ça va bien. Eh, dama am lu mu bëggoon laaj ci la. dama déggoon bon man xaaral ñu laaj quoi. bon dafa am sax benn rak. bon mag la quoi. waaw am na ay dix-neuf ans. bu ñu def dix-huit ans daal. waaw bon xale bi day saw guddi quoi. def nañ lu ne. su laaj lu tax ngay saw li rab dina ko def mais du cas yëpp nag la rab di def parce que bu fekkee xale la biy soog a kii parce que léeg-léeg vesseem dina tuuti bu vesse bi tuutee aussi du mën a continuer saw bu bëri loolu dinay waral di indi saw la yaa nga dégg baax. mais moom ah. waaw mais comme nee nga dem na ba 19 ans nga wax. waaw kooku aussi il faut ngeen seet si wàllu alxuraan aussi. Ah. ba xam daal parce que rab dina ko def mais bu dee du rab moom kooku sereen kese lañ koy fay jarul alxuraan. ok incha waaw li nga wax ci pour euh, Fatou mm-hmm. euh, waaw donc li ma doon wax mooy bu fekkee jigéen ji sëy na ak jëkkëram ba noppi. Mm-hmm. immédiatement bu paree dafay changer position bu jëkkër ji féete penk mu féete saw maanaam fii tànki jëkkër ji féete moom fa la boppam di féete. fi boppam féete fa la tànki jëkkëram di féete su ko defee rab bi bu ñëwatee du xam fan lay jaar parce que dafay gis bopp gis tànk. kooku lu efficace la si xeex ak ñoom. Mm-hmm. kooku boo ko defee tànk position bu dañul. du sëy yow te bu taxawee lu yàgg rek mu dafa gaaw découragé que bari na ñoo xamante ne en am ay faru rab sax léeg-léeg ñu am jëkkër far bi tam parce am rab yoo xam dañoo fiir nag du ñu wujjoo la duñ jëmaa am na ku nekk ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant. alhamdulilah. man dama woon dama damay laajte ndax xatim Souleymane bi mu tëddee noonu rek nga koy bindee wala. waaw xatim Souleymane ni mu tëddee koy bindee. ah waaw boole ko Salatul Fatiha bi. boo ci boolee Fatiha. waaw fa moom bind ko rek. ak ak maanaam juróom-ñaari fan yi non non mën nga ko bind noonu rek. moom ah. boo ko bindee ak euh, salaatul faat secret faate bi. waaw waaw yooyu rek doy na. incha allah ko juróom-ñaari xaatim rek maanaam bis bu ne mu suuroo benn. waaw nu ma gisee rek noonu nga koy de. noonu nga koy na la jël. amiin amiin la mu xam nga ko. Ah? la mu xana jaxadin. waaw waaw yor naa ko moom ak doomam yëpp. voilà mi ngi noonu. waaw non waxuma la la mu xafan jënd yi laa wax. non non lam xana jaxadin laay ah, boobu waaw moom am na solo sax nga boobu daañu si delloo si même ko tukki. waaw man maa ngi sori ji laa lay wootee. waaw mais maa ngi déglu sa émission bu baax. dëgg la maa ngi woon nga jub yàlla may. amiin amiin waaw nga nuyu ma waa Ndioum yëpp nag. incha allah Ndioum googu laa newoon sax. ah topp kii monsieur kii. Serigne Samba Ndiaye waaw. waaw waaw Ndiaye. waaw waaw maa ngi def toolu. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah ñu ngi lay ñaanal bu baax. Ah, jërëjëf jërëjëf kon nga leeral ñu rek. waaw incha allah rabbi jërëjëf incha allah. 849 45 muy suñu ma téléphone nee na monsieur Ndiaye xam naa <laughs> jàkkale bi. Euh, waaw waaw c'est vrai xam nañ ma <laughs> waaw li ko dalee foofu ba tëre ji Podor ba Ourossogui. Ah, ah, ah. foofu moom sama zone la woon daal. waaw am na kuy woote allo. maaleykum salaam. maaleykum salaam. docteur bi laa soxla. waaw ñu ngi lay déglu. man man la dama am benn problème. Mm-hmm. ci wàllu rab. Mm-hmm. parce que man su ma tëddee ba guddi. Mm-hmm. des fois damay gis dara luy ñëw daal di sëy man. vraiment de wala des fois su ma yaakaaree dara rek mu daal di tas wala ku ma amal ñaari fan ñetti fan rek nga daal di dem ba ci ay ñu may di ay mariage sax damay am problème bu rëy mujj damay mujjee bàyyi maa ngi ñu bàyyi problème boobu nag mun naa xam waaw non yow kañ di nga yor moom leer na loolu mu lay def rek moom rab la rek moom mooy moom ngay jéem a tàggoor rek. parce que man dafay tëj samay règle en même temps. waaw voilà waaw ndax moom moo koy defal lu effectivement rab la dafay tëj règle dafay perturber règle aussi. waaw ma wala des fois. day retaan. te su ma gisee benn fan fan tuuti lay ñëw mu arrêté. day jàpp sama biir di ko wala mu ngi tëbal ay mois. dëgg non rab rab a koy def rab koy def gën di jeex à chaque fois loolu ma jaax euh, rab bi na nga faju rab rek parce que man bañ ma ma ko expliqué fu ma dem ñu wax moom mm-hmm. non rab rab moo la jàpp dina lay def boobu métti wala waaw mm-hmm. des fois mm-hmm. parce que fan yi laa tëdd woon sax te man jéem naa koo faj sëriñ mun na dugg naa mu jëntëdd sax damay jaay sax sama yére di ko jéem a fajoo mun maa fexe ba mu dañ ci man waaye yàlla baax na daan nañ bu soobee Abdou Kader. bu ñu ma jox la numéro bi comme ça nga woo ko wax ak moom dégg nga. waaw léegi doo bi. jeex na buy nañ ko joxe bu soobee. waaw dina ko joxe waaw da rek. waaw d'accord xeetu jinne <laughs> soxna Sonia xam naa ne doy na waar daal puisque <laughs> nee naa la li sam waa ji wax sànq ñi ko am sax. Ah. te xamuñu ko ñoo ëpp ñi ko xam am waaw parce que tam doo ko sax la nag naan dara jot ma noonu di leen bari na gis nga di am ay problème ak bari na ñooy dégg ñu naan dañ ma liggéey ak yooyu ah. fekk du liggéey rab kese gis nga rab ak làmmañ cat mm-hmm. ñaar yooyu rek jafe-jafe bu doomu aadama am mm-hmm. daanaka foofu la mm-hmm. mm. am na ko wote 849 12 45 allo allo waaw da soxla mi lay déglu waaw ah. laay wootee waaw ana waa na nga def alhamdulilah ngi sant man daal loolu ngay wax mhm. moom la moom moo nekk si man mhm. pendant juróom-ñaari at mhm. du ma gis sax docteur bu ma dem dara te daf may but bu ma teyee ma doon nit boo lëggee du doon nit noonu daal la may def docteur bu ma dem rentré naa hôpital bu ma jàppee bu ma demee duñu gis dara def naa analyse du ñu gis dara lu ne def naa ko ñii ne jabet bu ma demee du gis dara ñee tension bu actuellement ñaa ngi nii clavicule bu damm te ñoom ñoo ko def. ah, ah ko defee. xeex ak man ni ma tere nañ la ba sonn nit ñu sonn ñi ñu ñuy jël nga dugg seen biir. Uh-huh. na nga leen bàyyi. ma ni ko man lu ma xas ba song ba pare du ko ba bari Cheikh na Tidiane Chérif bi jeexee walaay barke Sinda. nu nu la ko waxee diggante la wala dafa ñëw di wax ak yow. daf bu mujj bi daf ma yee carrément ma jóg. xam nga lu ma dolli may chance. buul ah. bi mu ma sànni. dama tiit ni allahu akbar. sa mm. bi ma ko séenee ah. waaw moom moytu mu dal sama clavier mu ni sil tam sama service may ñëw mun ma waxoon naa la ko avertissement bu njëkk baa nga noonu ma ne ko dootul ñaar léegi li may faj du ma ko bàyyi hmm. bari ki démb hmm. sama rakku jabar jooye seen nekk ñëw ñu ni ma rawale nañ ko fu nekk def nañu lu nekk te mënuñu ko faj léegi nag ñu rawale ko indi ko ci yow hmm. nee naa la na ko bàyyi ma ne ko du ko bàyyi tey du ma ko bàyyi ëllëg nag bu mu pare benn kuus la ma boolee may ak moom di moom ba mu génn dem ci télé sama Dom ci bopam am ku jëgë won itali ñew bëggu ko tak mu dugg ci digënté bi dindi ko ñinga ko kooku maa man ko dayer koku sax mënu won sëy mom man man wa ci won mu xex confirmation bu leer la parce que man mii sama wax ah mhm. man presque damay faj yooyu té man ci gënd la ma feeñee ni boba ma ngi en france en 76 di def stage ñu mhm. sacré cœur un waaw ma fi jikkon am kër ben femme lañ joxon 3 pièces mu ni bugg ko mu gëdd ko bayyi mhm. rap momu ko jëlé trois cent quarante deux si Cap Karat huit ans et demi rab soxal na ma fa ba sama ñaari jabar yëpp ñu tiir ku nekk dem sa yoon da nga wax la wa ay confirmation firnde yu leer pour wax ko ni góor gi li mu wax yëpp lu am la gis nga am na ci benn femme maa ngi moom dañuy correspondre en France jusqu'à présent neuf ans la def opération bu mu deful amul ñu boole ak man mu ñëw fekk ma fi d'ailleurs mi ngi def HLM 1 yàlla dimbale ma ci trois mois laa ko traité mu jël bu ba xale baa nga ne la di dox keneen aussi noonu keneen noonu actuellement nii am na koo xam ne sax mi ma promet ma ñëw fekk ci ba marque ni mais damay hésité ndax naa dem wala déet parce que dañ lay xeex façon xeex bu nga xam ne maar day taal mais c'est que man yàllaa ma ciy dimbale quoi mm-hmm. yàllaa ma ciy dimbale vraiment ah, te man boo gisee yenn yu bare ma koy éviter dama yore njaboot bu taw mm-hmm, j'ai peur de ça waaw moo taxoon ma ni même man yow man su ma xamoon sa adresse du man danaa la seet waaw pour même dimbal pour man particulièrement sama boppam parce que. man de waa ji su émission bi jeex dina joxe adresse bi. incha allah rabbi. dëgg la dëgg la voilà merci. jërëjëf Aïssa jërëjëf 849 12 45 su la amee looy laaj Mara ngeen woo ko mi ngi ni toog ci studio bi. donc wax vraiment lu dëggu la. Uh-huh. d'ailleurs même problème kër yooyu rek bu yàggul rek. am na sama benn xarit boo xam xamante ni dafa euh, doon waaj a toxu si këram. Uh-huh. ma ne ko na nga ñëw bi ma tëddee am nañ ma woon si gént ma ne ko daal na nga ba mu ñëwee si laa am lu ma ko jox comme saafara bi mu demee suy ko fa guddi gi nag rab yi fan amee xeex ak moom ni ko lu tax nga génn ñu sama kër. Ah. ma ne bu mu ñëwaatee daw wax ma ko ma ne ko balaa loolu laa gisoon moo tax ma ne la woon nga jaar parce que bu ñu leen génnewuloon bala ngay dugg rek boo duggee da nga am jafe-jafe. Hmm. donc li mu wax dama koy confirmer que ne rek vraiment dëgg la. Ah. te jinne moom xam naa ne luñ si waxit am luñ bàyyi. Ah. Euh, te buñ dellusee si wàllu nga doon wax léegi. waaw euh, muy ayatul kursi yooyu rek gis nga ayatul kursi yooyu soxna Sonia. waaw. moom rek doy na gàllaaj waaw kooku daal booy faral di ko jàng uh-huh. saa yoo jullee lu mu néew néew nga jàng ko benn yoon wooy uh-huh. tëdd nga jàng ko juróom ñaareel soo uh-huh. dimbali wala boo koy jàngit boobu ñëwee ba si suufument bi nga baam baamta ko juróom ñaari yoon tëddaale ko yàlla mën tey tëddaale njàpp aussi nit ki na yor njàpp fu mu toll daal loolu moom uh, te aussi li ñu digle woon si commencement bi rek muy di muur say cër ak yooyu uh, nit ki def ko am na ko léegi téléphone bi allo ça waaw. Euh, bi. waaw dinaa waaw bu waaw dinaa ko joxe ko wootoon fan di wax. waaw waaw waaw waaw. léegi a gis numéro a jokkoo ak yéen. waaw dëgg dee jigéen ñi nga xam ne aussi dañu am faru rab. Mm-hmm. parce que waxoon naa sànq ni rab li muy agiré euh, boo nekkee si jëkkër pour tere la am doom mooy da boo sëyee ba day ñëw sëyaat ak yow donc li ngay mën a def pour saafara te yomb na rek mm-hmm. même bu ñu lay jox ñaanit loolu il faut nga def ko mm-hmm. pour xeex ak moom puisque da ngay def saa yoo sëyeeg sa jëkkër ba pare immédiatement bu ngeen paree dangay ngay changer position mm-hmm. maanaam moom bu fekkee dafa féete woon penk bu muy sëyeeg yow euh, nga féete penk bu ngeen paree da maanaam saw moom mu féete penk danga ñu dellu si am na kuy woote allo. allo waaw. yaa ngi sant waaw bien. Eh, dama am lu laaj la. dama déggoon affaire bon man xaaral bu ñu laaj quoi. waaw bon dafa sax benn rak. bon la quoi. waaw am na ay dix neuf ans. bu ñu def dix huit ans daal. waaw bon xale bi day saw guddi quoi. def nañ lu ne. su ma ko laaj yow lu tax ngay saw mu ne moom daal day gis waaw comme li rab dina ko def mais du cas yëpp nag la rab di def parce que bu fekkee xale la bi soog a kii parce que léeg-léeg vesseem dina tuuti bu vessi bi tuutee aussi du mën a continuer saw bu bëri loolu dinay waral di indi saw la li nga dégg bara waaw mais comme nee nga dem na ba 19 ans nga wax waaw kooku aussi il faut ngeen seet si wàllu alxuraan aussi ba xam daal bis rab dina ko def mais bu dee du rab moom kooku sereen kese lañ koy faj jarul alxuraan incha allah waaw li nga wax ci pour photographe. Euh, mhm. euh, waaw donc li ma doon wax mooy bu fekkee jigéen ji sëy na ak jëkkëram ba noppi. Mhm. immédiatement bu paree dafay changer position bu jëkkër ji féete penk mu féetee saw maanaam fii tànki jëkkër ji féete moom fa la boppam di féete fi boppam féete fa tànk jëkkëram di féete su ko defee rab bi bu ñëwatee du xam fan lay jaar parce que dafay gis bopp gis tànk. kooku lu efficace la si xeex ak ñoom. Mhm. kooku boo ko defee tànk position bu dañul. du sëy ak yow te bu taxawee lu yàgg rek mu dafa gaaw découragé day parce que bari na ñoo xamante ne en général dañu am ay faru rab sax léeg-léeg ñu am jëkkër rek far bi tam parce que dafay am rab yoo xam ne dañoo féer nag duñu wujje wala duñu jamaale ak yooyu. waaw am na ku ne ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant. alhamdulilah. man dama woo dama damay laajte ndax xaatimu suleymaan ni mu tëddee noonu rek la koy bindee wala. waaw xaatimu suleymaan ni mu tëddee nga koy bindee. ah noonu la koy bindee waaw boole ko salaatul faatiha bi. boo ci boolee faatiha. waaw fa moom bind ko rek. ak ak maanaam juróom-ñaari fan yi waaw. ak salaatul faatiha. non non mën nga ko bind noonu rek. moom ah. boo ko bindee euh, salaatul faat secret faate bi. waaw waaw yooyu na. incha allah def ko juróom rek maanaam bis bu ne mu suuroo benn. waaw waaw nu mu bindee rek noonu nga la jël. amiin amiin xam nga ko. Ah? la mu xana jaxadin. waaw waaw yor naa ko moom ak doomam yëpp. voilà mi ngi la mu xana jaxadin. waaw la mu xafan jënd yi laa wax. non non lam xana ah, boobu waaw boobu moom am na solo sax parce boobu daañu ci delloo si même ko tukki. waaw man maa ngi yu ji laa lay wootee. Oh, waaw sëriñ maa ngi déglu sa émission la ngi waa Ndioum yëpp nag. Ndioum boobu laa newoon sax. ah topp kii monsieur kii. Serigne Samba Ndiaye waaw. waaw waaw Ndiaye. waaw waaw maa ngi def coono. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah lay ñaanal bu kon nga leeral ñu rek. waaw incha allah rabbi jërëjëf incha allah. 849 12 45 mooy suñu numéro téléphone nee na monsieur Ndiaye xam naa jàkkale bi. waaw waaw c'est vrai xam nañ <laughs> ji Podor kooku moom sama zone la woon daal. waaw am na koy woote allo. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw ñu ngi sant. waaw ñu ngi lay dégg. man man la dama am benn problème. Mm-hmm. ci wàllu rab. Mm-hmm. parce que man su ma tëddee ba guddi. Mm-hmm. des fois damay gis dara luy ñëw daal di fay man. vraiment de wala des fois su ma yaakaaree dara rek. mu daal di sax. wala ku ma amal ñaari fan ñetti fan rek nga daal di dem. ba ci ay ñu may di ay mariage sax. Mhm. da ngay am problème bu rëy mujj da ngay mujjee bàyyi maa ngi ñu bàyyi. Mhm. problème boobu moom laa xam. waaw non yow kañ li nga wax moom leer na. loolu mu lay def rek. moom rab rek moom mooy moom ngay jéem a tàggoor rek. te parce que man dafay tëj samay règle en même temps. waaw voilà waaw ndax moom moo koy defal du effectivement rab la. dafay tëj règle dafay perturber règle aussi. waaw mhm. damay gis des fois benn fan laay gis. waaw règle bi. su ma wala des fois. day retaan. te su ma gisee benn fan fan tuuti lay ñëw mu arrêté. Mhm. te jàpp sama biir bi tamit wala mu ngi tëbal ay mois. Ah, dëgg la. loolu rab rab koy def rab koy def sama jënd jeex à euh, rab bi na nga rab rek. parce que man bañ ma ma ko expliqué fu ma dem ñu wax mhm, moom. rab rab moo la jàpp dina def boobu metti wala. waaw. Mhm. des fois. parce que fan yi laa ci woon sax. te man jéem naa koo faj. ak sëriñ bu ne dugg naa bu ñeent bi sax damay jaay sax. sama mm. yére di ko jéem a fajoo. Mm. mun maa fex ba mu yàlla baax na dana dañ bu soobee Yàlla si kàttan. yàlla pare ma jox la numéro bi comme ça nga euh, woo bi. nañ ko joxe bu soobee Yàlla. waaw lépp joxe waaw ah, da rek. waaw mm-hmm. xeetu jinne <laughs> soxna Sonia xam naa ne doy na waar daal puisque <laughs> nee naa la li sam waa ji wax sànq ñi ko am sax. Ah. te xamuñu ko ñoo ëpp ñi ko xam waaw parce que am doo ko saxal rek naan dara jotuma ngi di leen bari na gis nga yaa may problème ak bari na ñooy dégg ñu naan dañ ma liggéey ak fekk du liggéey gis nga ak ca ñaar rek jafe-jafe bu doomu aadama am daanaka foofu la soxi ko am na ko wote 849 12 45 allo waaw dawaa ji laa soxla mi lay déglu waaw Thiès laay wootee waaw ana barikalla man daal loolu ngay wax mhm. moom la moom moo nekk si man mhm. pendant juróom-ñaari at mhm. du ma gis sax docteur bu ma dem dara te daf may but bu ma teyee ma doon nit boo lëggee du ma doon nit noonu daal la may def docteur bu ma dem rentré naa hôpital bu ma jàppee bu ma demee duñu gis dara def naa analyse du gis dara lu ne def naa ko ñii ne jabet bu ma demee du gis dara ñee tension bu